rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli rabbi nii rabbi raqqini rumma sha'ni zakkini nuuna xablal faayi wa siini listajib daawati bi ma faaxa zanni wa bi ma faaxa rabbi kulla zanuni nawit bi jaayil mustafa al wa majlisi wa maskani wa birri bi xaqi wajhikal karimi lixfiri wa kulla ma alay anni kafiri barke Seexul Xaddim waaw kon mbokk ñu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare tey ñaan Serigne Mountakha Mbacké Mouhamadul Basir yàlla na fi yàgg loolu te noonu lañ koy ñaanalee Serigne Moustapha Abdou Khadir di ko ñaanalee Serigne seen Jëmb Fall ak képp koo xam ne yaa ngi sol sa dàll rek te lislaam bi tax laa jóg ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax waaw ñu ñëwaat tey fii seen tele Touba TV tubaa Argentine TV fii si Buenos Aires capital waaw te nag dañoo ñëw si seen beneen numéro ñuy waaj ñuy waajal journée xasaayit muy am le 9 juillet maanaam 9 de julio te nag ñu seeti kuréelu waa Touba Capital si njiital Serigne Khadim kan di leen siyaare bu baax a baax a baax waaw xam naa ni nag du jar ñuy guddal ndax dafa xaw a guddi ba pare kon dañuy bàyyi ñoom ñu wéyal leen ci ay xasaayit ñu déglu leen bu noppee nag ñu doog a amal yenn ay ci jotaay am yenn luñ jot waxtaane xam naa ni wax ji du bari kon bismillah ñu bàyyi leen ñu wéyal ba pare bu noppee ñu doog a seex waxtaan wi ndeysaan ku dégg njàng mi xam ni njàng mi neex na lool macha allah ku dégg xam ni wax dëgg yàlla ñu koy jàng ñu miin xasaayit lañ ñu bëgg xasaayit ni nga ko waxee woon sànq nag ci commencement bi kuréel gi yaakaar naa ku ñëw Argentine xam ni kuréel gi kuréel gi mooy kuréel gi njëkk ci dëkk bi kuréel gis tamit xam ni ñu mën a jàng leen macha allah njàng mi am na Pastef ànd naag yar ànd naag ay teggin te nii la ko sëriñ bi bëggee waaw kon xam naa ni jëwriñ bi muy sëriñ moom la ñuy jox mu nuyoo nuyoo mbokki taalibe yi bu noppee ñu doog a wéel. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ziare mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne daxal Basir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko barakat Cheikhul Khadim di ñaanal Serigne Cheikh Jëbb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootu borom Tuubaa yëpp di bu ngeen gisee. jotaay bii li ko waral nag eh, dafa am bis bu solo boo xamante ne nii moom lañuy ñuy dëgmal muy bisu xasida yi ci wàccaay bi ñu ko dalee def léegi yàgg léegi mu yàgg daal ko nit maanaam eh, bu ngeen gisee ñu dajaloo fii saa su nekk di yëngu ci xasida yi di ci góorgóorlu di ci sonn kem suñu kàttan comme ni ko sëriñ bu bëggee bis boobu rek moo ko waral ci jamono ji te dafa nekk loo xamante ne nii dara ëpp ko solo fi mu tël nii fi ñuy wax ak yéen ci yoonu murit mooy xasida yi sëriñ bi moo xoon xasida yi mooy sama tànk kon it maanaam boobu ba léegi ci lañu nekkoon di ci liggéey saa su nekk suba ngoon guddeeg bëccëg. sëñ Xaadim kaddu yi am na solo ñoo ngi siyaare bu baax sëñ Abdou Lahad ñu ngi koy siyaare bu baax di siyaare bu baax sëñ Abdou di siyaare yëpp di siyaare baax sëñ Modou sëñ Jili ñoom ñëpp ñu ngi leen siyaare bu baax waaw sëñ Xaadim ñu ngi lay siyaare bu baax kàddu yi am na solo macha allah ñu lay laaj rek maanaam kuréel gi boo ñu doon wax tey ci kuréel gi looñ ci mën a wax loo xam ni ñi koy dégg ak ñi nga xam ne bëgg nañ am na ñu bari ñoo xam ni bëgg nañoo ñëw ci kuréel gi xamuñ ni ñuy def ba ñëw maanaam nu ñu waxee kuréel gi maanaam ay sartam ak nu muy doxee. question bi moom xasida yi moom sëriñ bi moom dafa sàkk ñu koy jàng xasida yi kon it maanaam te it ñun sunu mat sunu mat jàpp ci yoon wi jàpp nañu mooy xasida yi kon it nekkul loo xamante ne nii dafa jafe mbala ñu déedéet képp koo xamante ne nii bëgg ngaa jàng te nekk jàngkatu xasida boo ñëwee ci kuréel gi sart yi ñuy dox bu ñu xoolee ne yow kat mën ngaa jàng ci kuréel gi incha allah ubbil nañ bunt ñëpp waaye kuréel gi maanaam lenn képp moo ko tax a jóg liggéeyal Serigne Touba jàng xasi yi ngir jëmmi Serigne bi képp tax loolu moom loolu dañuy jiital ci ñuy def ñu nag ngir kenn xasi yi dañ koy jàng ngir jëmmi Serigne Touba ngir jëmmi Serigne Touba képp képp képp képp donc amul leneen loo xam te ne nañ ko ci ah, moo tax mu eh, li ci ëpp solo yit maanaam danañ góorgóorlu ci xeeti njàng yëpp surtout eh, njàng mag ñi moom dañ ciy sonn bu baax a baax te it maanaam dafa bokk ci lu ci ci ci li ëpp sens ci jamono ji nga xam ne sëriñ bi daf cee demoon na ba li may wax gars yi saa su nekk rek Cheikh Abdoulaye dafa waroon ay mag yoo xam spécial ñoo xamante ne nii dañ koy jàngal kenn ku ci nekk ba ñëwee da ngaa damm sa sa gopp ne man lépp lu ma doon def jaayante ak suñu Abdoulaye nekk nekk nekk euh, doon dox ci xasida yi subangoon ngoon kuréel googu ne sëñ sunu euh, Baye Mbaye ña moo ko jiite woon kon ci tànk yooyu ak jaamu yàlla ci ci ci ci loolu kase lañ fas yéene dox ñu ngi koy tàmbalee nag suñu jëm yi rus nañoo def it maanaam lenn loo xamante ne ni nit dinañu gis di di xeeb jàngkat moom tamit li loolu loolu moo ci ëpp solo xasida moom dañ koy jàng te sëriñ bi tax loolu moom xam naa loolu lañ la ciy tontu rek incha allah. suñ xaadim tontu bi leer na lool macha allah leer na lool xanaa ñu lay laajaat rek suñ xaadim ba tey maanaam kuréel gi kuma njàng bi dafa am fu mu basé wu ci njàng mag ñi. wala daa am comme mel ni am na ñu bari ñu jot a xam ñoo xam ni si mag ña ñu daan jàng koy ku si mel ni sëñ Mayib wala ku si mel ni sëñ ñoo ñu seen jàng wala waa kër sëñ Masamba yaakaar naa seen jàng bari na kuréel yu bari dañ see basé wu ñuy laaj ba xam kuréel gi dafa am maanaam si jàngu mag ñi am na si maanaam ku si ëpp moom la ñuy jàng am njàngam cosaanam njàng man cosaanal njàng li ñu la doon laaj ba xam kuréel gi daa am fu mu basé wu si njàngu mag ñi. kilifa gi euh, comme noonu nga ko waxee rek maanaam kuréel gi moom ci xeetu njàngu mag yëpp lay yëngu ci xeetu njàngu mag ñëpp la jàng daal yëpp dañ koy jàng muy sëñ Siise sëñ Mayib sëñ Masamba waaye nag sëñ ma yi daanaka mooy mooy basum jàng sëñ Masamba sëñ Masamba moom mooy basum njàng kon it maanaam saa su nekk moom ci la ñuy gën a góorgóorlu di ci di di di ci gën a dox di ci gën a xuus waaye nag maanaam mag ñëpp dañ leen a jàng daal. waaw maanaam sëñ Xaadim ñu la laaj ba tey tamit ndax. Euh, kuréel gi ñoom ñu ngi jéem di jéem a fent seen i daaj bopp wala tamit ñi xam ne ñoom ñooy toog si kuréel gi ñu ngi jéem ba buñ jàngee am jàng ba buñ déggee jàng xam ni yax bi fii la jóge ba ëllëgee ku leen mën a laaj ñun la carrément kat njàng mi kii ko jàng ci kii la jaar ci kii la jaar ba si ñun ñun ñun nii lañ ko def. comme noonu nga ko laajee rek ñun moom ci loolu la ñuy dox doxuñ ci leneen loo xamante ne nii buñ ko jàngee dinañ naatable nii lii kan moo ko war a jàng saa buñ fu ñu jàng rek day am tegtal dalil maanaam xasida yi li may wax rek saa su nekk boo jàngee kuy góorgóorlu li may wax sax kuy góor góorlu bu ko jàngkat déggee waxuma ñi nga xam te ne dañuy déglu kuy jàngkat bu ko déggee dina xam ne kii kat mu ngi liggéey ñun ci loolu la ñuy dox saa su nekk dañoo bëgg bu ñu jàngee suñu kilifa yi nga xam ne ay jàngkat lañ bu ñu déggee kat dinañ ah ñi sama ñi sama dongo kat ñu ngi góorgóorlu ci ci njàng mi te loolu képp lañ ciy sàkku nag sàkku ci it maanaam ngërëma Sëriñ Tuubaa di ci sonn nag suba ngoon guddeeg bëccëg di ci dox e, loolu daal maam saa su nekk maam sa bis bu nekk bu ñëwee dañuy leeral bañ dalee répété ba léegi ci dëkk bi heure bu ñëwee buñ buñ buñ ubbee maanaam dañuy dem ci mag ji rek leeral ci door a jàll ci la ñuy jàll ci loolu la ñuy dox daal. waaw jërëjëf sëñ Xaadim kàddu yi leer na macha allah kàddu yi leer na lool waaw sëñ Xaadim ñu la laaj ba tey tamit ndax maanaam kuréel ñi ñi nga xam ne ñooy jàng xasaay di kuréel gi daa am lim boo xam ni fa ngeen ko yemale ni lim boobu lay kuréel gi di am keneen ku ñëwaat da ngay toog xaar wala kuréel gi moom chaque jour dafa dafa ubbeeku rek maanaam amul fu mu ko limité si ay doomu aadama ku ñëw rek mën ngaa toog. waaw jërëjëf moom comme noonu nga ko waxee kuréel moom amul limite waaye nag ku ñëw mën ngaa toog loolu tamit du doxewul noonu daal maanaam daa am fooy jaar ba pare bu ñu xamee ne yow mii mën ngaa jàng ci kuréel gi ñu door laa euh, bàyyi nga tàbbi ci kuréel gi daal loolu tamit dañ koy kii mooy waaye du du du ku nekk da nga ñëw rek ñu bàyyi la maanaam nga nga ñëw toog ci kuréel gi jàng kuréel gi daa am nu muy doxe te am na ñoo xam te ne nii spécial ñoom ñoo saytu loolu ñoom ñoo yor loolu ñoo féetewoo loolu euh, saa su nekk rek boo ñëwee am na fooy jaar ñu la xoolee xam na yow mën ngaa jàng liñ soxla mu ci yow bu fekkee da ngaa dese lu xam li nga dese bariwul it ñu jaayante am lu ñu def ci yow ba suñu borom def nga mën a kii ci daal loolu tamit noonu la ñuy doxee daal. sëñ Xaadim kàddu yi leer na ba tey waaw mu mel ni kuréel gi li ma ko waxee woon sànq kuréel gi Touba Capital yaakaar naa ku ñëw si dëkk bi di xam ne kuréel gi mooy kuréel gi fi njëkk sosu waaw boobu ba tey tamit liggéey sëñ tubaab yi maanaam daan am ay tànki kanam nga xam ni moom teem gu day gàccaal démbam boobu ba tey am na kuréel yu bari yu fi sosu macha yoo xam tamit ñu mën a jàng macha allah. ma leen doon laaj seen diggante ak kuréel yi maanaam seen relation ndax ñun dinañ toog beneen saa ñu gis kuréel sélection am ñu war a boole kuréel gi ak yeneen kuréel ñu war a jàng maanaam seen relation yéen ak yeneen waa kuréel yi. relation bi moom moom mooy taalibe ak taalibe ak ak moromam rek tey maanaam ñun ñëpp ci xasida yi la ñuy dund. Eh, kenn ku ci nekk boo gisee sa morom da ngay da ngay jël lépp jox ko sa morom jàpp na moom moo ko war a doxal noonu la ñuy doxee. tey it jamono ji wax dëgg fa la nag mu mu mu am solo lañ la ñuy dund ndax mbégte mu ñuy dund mooy dem nañ ba kuréel yi fees na kàpp ci dëkk bi te loolu la ñuy ñaan bu ñu sañoon mu dem ba nekk téeméeri kuréel moom loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy dox ni te maanaam xas day dafa war a jolli fépp ci dëkk bi maanaam ñun ñii ñun ñii tey sëriñ bi moo ñu moo ñu defal tawfeex goo xamante ne ku si gis sa morom rek jàpp nga ne kooku la gën te loolu dafa loolu loolu dafa bokk ci ak woyof suñu diggante ak yeneen kuréel li ñuy dox ci dëkk bi ñun ñoo koy doxandoo bisu xas day daanaka ñun ak kuréel yi ñun ñoo njëkk di dox boobu ba léegi saa su nekk ñun ñu ngi déggoo di xool naka la ñuy taxawalee bis bi di ci sonn suba ngoon guddik bëccëg programme bi bu ñuy tëral sax ñun ak kuréel yi ñun dañuy jokkoo xool ndaka ndaka lañ ko ndaka lañ koy doxalee ba ñëpp mën cee gis seen bopp kon it amul leen amul leen loo xamante ne nii kii nañ ko ci wax dëgg fa yàlla waaw moom ñoom sax dañuy léeg-léeg sax dañuy dajee programme sax dañu naan ah tey ñoo booloo jàng waaw loolu moom ci la ñuy dox daal wax dëgg fa yàlla boole moom wax dëgg fa yàlla sëriñ bi defal nañu ko wax dëgg kàddu yi am na solo lool wax dëgg yàlla kon xam naa ni dañ lay laaj bu noppee si laaj bi doo doo a dugg ci wàllum suñu xasaayit gi ak waajtaay gi yooyu xam na ni yéen ngi si boobu ba tey ndax bi ñëwee ñu ngi leen fekk macha allah si digg répétition dañ leen a dagg sax ñu ngi koy tuub bu baax a baax a baax waaw kon dañuy laaj ndax si Amérique latine bi la nekk jamono ji te képp koo gis si àdduna muy jàng xasaayit bëgg na bu ëllëgee mu dem fépp foo ne sëñ Tuubaa nee woon na inu xaati bu nasaaraatu fi addim li maaliki mutaran kon ku ne yaakaar bëgg ngaa teewal Serigne Touba fu ne yëkkatil ko xasaay dami xasaay nag moom kii rajo sax kii kuréel ak kii toog di ko durus di ko tari nit ñi di ko dégg sax ci la bokk te ku nekk yaa bëgg ngaa bokk si liy àggale liggéey Serigne Touba bi ñu lay laaj maanaam seen diggante yéen ak waa relation extérieure waa extérieure maanaam ñi nga xam ni ñoo ngi ñii ngi Europe wala ñii ngi Brésil wala ñii ngi Chili wala leneen leneen ndax yéen nga am ay relation yoo xam ne bu ëllëgee xalaat ngeen bu ëllëgee comme journée xasaayit Brésil wala journée xasaayit Italie ngeen jël avion spécial dem jàngali leen fa xasaayit seen dowaay yëkkati ko waaw jërëjëf sëñ Xaadim kàddu yi am na solo xam naa dañuy dugg ci wàllum journée xasaayit gi ndax moo waral lépp nag ko dëgg yàlla ni nga ko waxee woon sànq dañuy waaj bis boo xam ni donte seen Tubaa bis yëpp ay bisam lan waaw ndax moom moon moom bisam yëpp moom ndax dañoo indi nabi laay ku la dëri sali wasani man na ku la sëri kon lépp moom moom mooy te zimaamul war a ansi la woon la da laay fi yeddi kon lépp mooy borom bis yeeg weer yeeg at yeeg yëpp moo ko moom waaye nag loo gis lu dafa am spécial muy ñun nag waa Argentine li ma ko waxee sànq muy le 9 juillet muy 9 de julio ñu tànn bis boo xam ni dañ ci yendoo jànq jàng xasaayit sëñ Tuubaa yi yendu see wàcce alxuraanu karim yendu see liggéeyal sëriñ tubaa ci cant di bernde di jox jaamu yàlla yi amuñ si xaaj yi amuñ si seen mm. waaw kon nag bis boobu te ab saxaar bu jubee gaar faaw mu corne kon war nañ cee waxtaan bu baax a baax a baax ñi koy gis nekk fu ne ci àdduna dinañ ko gis xam ni waa Argentine ñi ngi waaj bés boo xam ni bokk na ci bés yi gën a mag ci dëkk bi waaw kon xam naa sëñ Xaadim lay jox nga wax ñu lu ngeen ni lu ngeen di waajee bu noppee ñu doog a dugg ci xasaay di nu ngeen ciy waaj ak yooyu noonu. kon xam naa foofu moom kon niñ koy waxee rek maanaam noowee de xul képp ku nekk ci Argentine boo ko déggee rek xam ne bisu xasida yi ñëwaat na nove de julio mooy 9 juillet maanaam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñu ngi koy waaj nag ay weeri weer wax dëgg faal ñu ngi koy waaj ndax it kuréel boo ci dem rek ay weer ñu ngi koy waaj di ci sonn suba ngoon di ci waajal loo xamante ne nii sëriñ bi képp a tax nag defuñu ko leneen loolu sëriñ bi te it maanaam bisu xasida yi dafa nekk loo xamante ne nii day dundal day dundalaat suñu xol yi ak suñu ruu yi xëy su nekk waaye nag dafa am loo xamante ne ni bu nu demee tey ba xalifa général de mourides eh, moom chaque jour dañuy soññ ci yu bëree bëri di dundalaat xasida yi di woote ay bisu xasida dem ba eh, kenn ku ci nekk ñun gis nga ren maanaam maanaam yoonu murit dafa dundat dafa dundaat ci lu bëree bëri bëri bëri day dund saa su nekk waaye mun Mountakha dafa ñëw gën koo gën gën gën koo yeesal kon maanaam ñun taalibe yi amuñu lenn lu xasida yi amuñu lu ko gën a kawe ci kaw suuf eh, liñ ci liñ ciy wax mooy dañ ci message duñ ci yàlla rek message boo xamante ne nii ñu ngi ciy soññ képp koo xamante ne ni yaa ngi ci yaa ngi fii ba Brésil Argentine ba Brésil ba Chili ba Uruguay képp koo xamante ne nii yaa ngi dégg sunu kàddu rek te mën a teew ci bis xasida yi ñu ngi lay sàkku nga teew ci ndax bisu jaamu yàlla la defuñu ñu fa lenn loo xamante ne nii weesu na jaamu yàlla ndax bu ñu xëyee dinañ jàng alxuraan ak xasida kase nag kepp képp amul lenn loo xam da koy rax alxuraan ak xasida ak salatu ala nabi ba ngoon jot ñu def lépp addee suñ tubaa ñaan sunu borom defal ñu tawfeex kon xam naa après dañuy bàyyi kàddu gi ak Cheikh Abdoulaye après bu pare mu xool ñu jox suñu Abdou Sy incha allah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim noo ngi nuyu mbokki taalibe bi ni seetaan yëpp jaare ci télévision bii di Touba Argentine TV gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi noo ngi sant sunu wasila Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu yéenee liggéeyal maamam ji ci yoonu murit def ci lu kawe njortam naka noonu nuy ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall seen boroom dëgëral ko ak mbooleem kilifa diine yëpp ah, di rafetlu bu baax a baax jotaay bii nga xam ni ah, dafa bokk ci jotaay yi ñuy dundal muy mbégte Euh, xasida yi di bis bu mag bu ñuy waajal muy journée xasida boo xam ne nii bi mooy quatrième édition ñu koy def fii ci Touba Argentine mooy huitième édition ñu koy def ci Touba nga xam ne nag si daaw ñoo ko def woon fële ca Touba Cordoba mbokki taalibe jegoon fii dem fekk fekk ko jaayante ak sëriñ bi ren ñu koy defaat fii ci Touba capital Buenos Aires euh, mu tombeek mbégte mu rëy ci ñun ni ko sëñ xaadim léegi waxee sunu xalifa bi fi toog di sëriñ Muntaqa Bachiru nga xam ne ñun jànkatu xasida yëpp soñaat nañu ci ñu gën a jàppaat xasida yi ñu gën a toppaat xasida yi eh, ñu gën a warmalaat xasida yi kon nag bis bii moom ñun amuñu ci loolu rek di ci wane suñu mbégte di ñaan nag suñu borom yóbbuñu ci ci bismillahi rahmaani rahim ñu defe ko ñu ko sëriñ bi bëggee ndax eh, ni ñu ko waxee rek bis ba moom duñ fa def dara lu weesu jaamu yàlla muy jàng alquran durus xasaayit kuréel yi ñëw fa yëkkati xasida yi ñu bernde fa ñaan sëñ tubaa defal nu jàmm ci réew mi ndax kat eh, damay wax ne ñun moom dañoo war a góorgóorluwaat bu baax a baax ndax yàlla moo nu nattu ñu nekk ci xasida yi sëriñ tubaa tànn ñu koy jàng eh, te dëkk bi li muy rëy rëy rëy wallahi alazim jullit jullit ñu fi nekk di jàng alquran ak yëkkati xasida Sëriñ Tuubaa yi ñoo fi def jàmm ji waaye bu doon bu doon nekkuñu fi di jaamu yàlla topp suñu liggéey dong te duñu jàng xasida yi pexem tubaab ni dal na suñu kaw te boobaa dañuy delluwaat fa nu jóge woon rek waaye xasida yi ñu fiy jàng nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ne woon sama xasida yi day eh, def naa ko mu kawe julli gunu nangu ak koor gunu nangu kon mën na mën nañ ne eh, yenn jaamu yàlla yi def ci réew mi sax njàngum xasida gi moo këpp doole te wax dëgg faa ni ko sëñ Xaadim waxee léegi dëkk bi ku ne xam ne ni bu njëkk kuréelu xasida neewoon na fi lool waaye léegi macha allah kuréel yu bare ngi fi euh, te loolu lépp euh, yoonu Serigne Touba moom tànki kanam rek la am amul tànki gannaaw kon nag ñu ngi ñaan bis bi ñu ngi ci woo euh, jullit ñëpp di ci woo fépp fu ab jullit nekk di wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah di ci woo sunu mbokki tijaan yi nga xam ne ñoo nekk dëkk bi di wax ne rek bésub jaamu yàlla la bésub sëriñ Touba la sunu bés la ñun ñëpp euh, di ñaan sunu borom mu yóbbu ñu ci rek ba nu mën ko defee ni ko sëriñ bi bëggee xol bu sedd nag la ñuy waxee rek di waxee ci xëy na dañoo waxee ndigal rek ci ndigalu sunu jëwriñ Serigne Yankoba sëriñ jàngana si la ak ndigalu Serigne Khadim waaye ñun moom yaakaar naa ne mbégte rek lañ ci am ñoo ngi ñaan rek Serigne Touba yóbbu ñu ca ci barke Seexul Xadim naa dañuy gàttale foofu sunu kàddu rek. jox Serigne Abdou Cissé mu àggale. di leen siyaar bu baax kenn ku nekk sa tur sant ginnaaw bu ñu ñaanalee sëñ Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gi ak mboolem taalibe yi ba seen yéene mat ci liggéeyub Serigne Touba bi ah, di yëkkati suñu kàddu rek te fas ko yéene gàttal ndax li ci ëppoon solo jëwriñ yi wax nañ ko ndax Serigne Cheikhouna li ci ëpp wax na ko. Cheikh Abdoul Ahad tamit yaakaar naa ne lim ci waxit yaakaar naa kenn mënu cee teg leneen waaye nag ndigal moom bu jógee moom jëfee rek euh, di saar bu baax Serigne Ndiagane Sylla mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci liggéey bi euh, ñu ngi koy saar bu baax a baax a baax euh, loolu nga wax nag am na solo lool wax dëgg yàlla bis bi day bis boo xam ne bisub xasida moom buñ ko waxee yaakaar naa ne képp ku fa ñëw war ngaa xam ne jàng xasida ak alxuraan ak salaatu ala bi rek moo la fa indi ndax dañuy faral di wax ne nit dana ñëw ci mbooloo nekk fa ba jógee fa du fa jëlee dara ak yàqut rek la fay jële nit dana ñëw ci mbooloo ba jóge fa ay tuyaabay kese la fay jële te loolu lépp kenn ku ci nekk yaa koy sàkkul sa bopp ndax damay faral di wax ne màggalu Tuubaa gi la muy réeré am na ñoo xam ne bu ñëwee xay na na nga fay def su suru noonu mais loolu ñoom lay këpp waat ña fa ñëw ne ngir jënd Serigne Touba Serigne ba rek lañ fay lañ lañ fay amee waaw rawatina nag xasida yi nga xam ne sëriñ Touba lu ne def ko cee daj ngir boroomam am ci loo xam ne daf koo diggam ak boromam la am loo xam ne digganteem ak yonente bi la am diggan loo xam ne digganteem ak taalibe yi la mun nag lu tuuti lañ ci xam jërëjëf waaw comme ni ma ko waxee sànq rek liggéey bi daal li ci am solo ba am solo ñu xam li ñu tax a jóg xam ne Serigne Touba rek lañ koy defal te it xasida yi Serigne Touba mi la ko ak dara waaw kon nag dama ci soñ sama bopp di ci soññi jànkati xasida yi kenn ku nekk ci ñun xam ne bis bi sa bis la ndax ku ko mënoon yow rek yoway taxawal sa bis di ko def waaye nag loo xamante ni si dañ koy def ngir jëmmi Serigne Touba nañ ci jàpp ñun ñëpp rek xam ne Serigne Touba rek lañ koy defal waaw maa ngi jégalu bu baax nag xëy na waxtu weexat ak kàddu yi waaye li nga laaj léegi ci wàllu programme bi yaakaar naa loolu Serigne Mate Sène ci ëpp xam-xam wala Serigne Khadim. hamdi wa sukri liman bi hamdi wa sukri liman kulli bi